jamono jëm ci kanam la ñu donc vraiment loolu bëggoon naa buggoon naa mu leer puisque dégg naa ci ay ay wax yu bari secretaire général bii fii laa ko fekk wante du ma ne ndax kii ko fi indi kaa ko fi indi dama naan ndax li ma bëgg pour président mi ma wóolu ba teg ma fii dootul amati ci dundam ku mu war a mën a gën a wóolu ndax qualité liggéey bi ma koy jox ñi ma bëgg ñu jàppale ma ci ndax man nañu ko wala déet bu ñu ko manee rek jeex na bu ñu ko manee du ma di nekk di wuti keneen xam xam nga voilà loolu daal moo loolu daal moo ci moo ci am importance léegi nag ma wax ne ma wax ne débat politik bi jeex na léegi vraiment puisque dañoo dem waaw am na ku sàkku woon ci man ma leeral ne ndax maa musa wax ne damay tas kër gi ma ne ko déedéet musuma ko wax bu ma ko waxee na ko génne <laughs> fu ma ko waxee sama programme <laughs> xam nga eh, dañu ne dama bëgg ay aaya mais léeg-léeg daf koo laaj in jaakum fasiqun bi na ba nabain fatabayyanu bu bu bu saay-saay ñëwee bett la ak xibaar bala nga koo jël di ci juger nit leer lu ko ba pare ba mu wér la leerlu ko ba mu wér la parce que diw nee na ma nee na lii nee na laa nee na lii waaw da nga naan ko d'abord indil ma fi mu ko waxee parce que lu may wax euh, ki ma yar ci politique daf ma daan wax je suis un homme nuancé je suis très nuancé bi may wax décret dootuma fal waxuma décret dootuma fal que loolu ci dogalu yàlla la ne dama ni fasatuma yéene décret di ma fal parce que yéene yoo puisque damay bàyyi xel dogalu yàlla man sama yéene laa moom sama yéene kay sama yéene sama yéene laa moom ak sama góor góorgóorlu ak sama samay pexe wante li ci des nag moom dafa dafa am boroom donc vraiment suñu suñu mbokk yi ku ñëwati rek ne la Idrissa nee na nee ko fu mu ko waxee rek génneel ba nga déglu bu baax li ma wax puisque dégg c'est très important bu dégg amee déficience xam-xam manqué moo tax yàlla mi xarañ di boole ay turam en général day wax samiun alimun c'est-à-dire l'audient l'omniscient qualité dégg dégg mooy def qualité xam donc da ngeen di déglu vraiment en tout cas ñi ñu sopp daal ànd ak ñun muy njabootu président muy sama njaboot nañu jàpp ni ñun daal dellu nañu mel ni mburoog soow ba ñu nekkoon puisque nag loolu loolu loolu loolu mooy dëgg gi loolu moo xew cest bi ñuy bi ñuy waxtaan ci ci njalbeen dañ doon wax yeneen xalaatuñu woon egg si fii dañ doon wax ay statut de chef de l'opposition dugg na fii génn na fii wante nag bi ñu xamee ni gindikoo am na gindikoo gi leer te wér kii xam na ci dara ca ca suñuy jamono waaw ñoo benn lañu ñu woon voilà léegi nag jaar-jaar am na moo tax euh, président Famara daf ma dénk ñaar bi ma ko ziyaare jee daf ni ma sama rak la ma la daan wax ba ñuy lijjanti mbiru abdu Diouf ak Ablaye Wade laa lay wax mooy gumba du jommi <laughs> léeg-léeg gumba du jommi puisque du gis li koy jommal ñi la bëgg a jommal bu ñu defee seeni pexe melal ni gisoo ko rek defal fatuus mu teg ci ne ma mu ne ma li ma lay dénk mooy ngeen fexe ba ràññee puisque dafa am ñoo xam ni ils ne son contents que bu fekkente ne ñu ngi troubler les eaux am ñoo xam ni bu ñu xëyee suba ba ngoon dañuy nager dans les eaux troubles ensuite ñu jéem a fexe seeni kilifa nager en eau trouble ñun nag ku troubler sam ndox di ca feey boo ñu ca woowee ñu bañ ñu laaj donc pour mu pour pour mu leer que liggéey moo ñu fi indi urgence yi bare na xale yi di di ñàkk liggéey ñëpp la metti c'est une priorité une surpriorité nationale économie numérique bi ñuy wax ci àddina bi suñu doom yi ca la ñuy dund ca tàngu Karl max ay économie euh, révolution industrielle lañ doon wax ñoom ñuy théoriser l'exploitation de l'homme par l'homme révolution bii di ñëw nag muy révolution numérique l'homme sera presque économiquement inutile puisque l'intelligence artificielle va le remplacer dans la plupart des métiers loolu mooy li ñuy xaar ñu war a waajal suñuy doom ci loolu ensuite fii ak at ñu am ay ressources gazière pétrolière nan lañ koy def nan la ñuy fexe ba aaru suñu bopp ak suñu réew pour que ñeneen ñoo xam ni fu richesse yooya am ñu jéem fa indi ay jafe-jafe pour teg ca loxo ñu moytu loolu donc yooyu mooy li am solo léegi nag li li li ma wax mooy deux mille dix coow la jeex na compétition la woon électorale ku nekk saam sa programme